wa fikrati nawwir waxal bi arsida mbokk yi ni bàyyi xel fun mën a nekk ci àdduna bi dikkati na ak yéen ci seen seen bu am solo bi muy le grand secret wolof di seen bi nga xam ne moo leen indil njariñ yu am solo yi ñoo ngi leen di waxati asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bi ñu sant tey yàlla jullu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ndokkeel ak jaajëfal mboole mbokk yi bàyyi xel bu baaxa baaxa baax mbokk yi tey nag dañ leen fas yene indil benn secret boo xam secret bu ama am solo la ci wàllu wërsëg di secret boo xam ne gaaw na lool ci wërsëg di secret buy jàppandal bu baaxa baaxa baax baax képp koo xam ne yaakaar muy tas daf yomb wala nga gis ne sa wërsëg dafa nuru lu tuuti fexeel ba teewul sekkar bi nga defe ko nii ñu koy waxe insha allahu rabbi suñu borom dina la defal ak ubbiku bu baax a baax a baax <clears throat> bi nag du lu jafe secret bu yomb la waaye nii ñu koy waxe képp koo xam ne defe nga ko nii insha allahu rabbi lii di wërsëg dina la yomb lool insha allah xanaa bala ñu gën a xóotal rek dañuy defati ab fàttali bu gàtt rek ci mbokk yi nga xamne ñoo mujjee ñaw ta abonné guñ ci seen bi ñu abonné tey partage vidéo yi mu gëna yaatu ndax vidéo yi ni dugal ci seen wi yëpp ay vidéo yi njariñ kese la te njariñ moom nu mu gën a rek ni la gëne di wax mbokk yi nga xam ne dañoo bëgg def lu listixaar dañuy def lu listixaar à distance foo mëna a nekk ci àdduna bi boo ñu contacté ci numéro bi muy 77 684 28 28 incha allah rabbi des na la defal listixaar gu leer naññi garab yi kàttan yi muy garabu mos xam yi disponible na jamono ji ñuy wax ak yéen mbokk yi bëgg bokk ci groupe whatsapp bi tamit mën nañu contacter ci même numéro bi waaye nag groupe whatsapp bi am na ay sartu yu nu ci bokkee kon mbokk ñu dikk ak yéen ci secret bi secret bi aay bi ñuy wax wa ma min dabbatin fi l ardi ilaa ala allahi risquha wa yalamu mustaqaraha wa mustawdaa kullun fi kitaabin mubin mbokk aay bi ngay jéem a fexe ba bind ko juróom ñaari yoon yu tegaloo wa ma min dabbatin fi l ardi ilaa ala allahi risquha wa yalamu mustaqaraha wa mustawdaa kullun fi kitaabin mubin boo ko bindee juróom ñaari yoon nga fexe ba mboolem miim yi nga xam ne mi ngi ci yépp rek nga ubbi ko miim bu si nekk nga dugal ci alam nasarah ba mu jeex juróom-ñaari yoon ngay bind aaya bi bépp miim boo xam ne mi ngi ci biir aaya bi nga yaatal miim gi boo ko yaatalee ba mu yaatu nga dugal ci alam nasarah laka sadrak wa wada'na wisrak الذي أنقض سهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرحت فانشب وإلى ربك فارغب nga bind saar woow noonu nga bind ko ci biir miim gi mboole miim yépp ba mat boo noppee nga wut cuuraay bi ni wax cuuraay kaafoor cuuraay kaafoor déggal astaghfirullah nga wut parfum kaafoor ak parfum ma u wérd ñaari parfon yi lay àndal nga fexe ba wut ndoxum teen ak ndoxum géej ak ndoxu rabina ak ndoxu taw ñeenti ndox yi nga fexe ba boole ko ak saafara si di ko sangoo mbokk yi lii tëju goo mën di tëju boo ko defee di nga ubbi